xarañ egsi na yéen waa Angleterre yéen waa France yéen waa Allemagne Modou Lo ñëw na ah waa Parcelles kat moo ñëw Modou xarañ Lo le roi des arènes kan moo ñëw champion bi moo ñëw gaa yaa ngi noonu jëlal ma leen ñi ngi jéem def ay débat dépp Serigne Demba Senghor waxoon na ma ne ma tey dina metti waaye xoolal maa ngi gis kan ñi moom it mu duggu kan moo ñëw xale bi nga xam ni dañ ko yónni te yàkkamti ko moom moo ñëw laa njaay kan moo ñëw waa parcelle ñëw nañ mais mi ngi ànd ay mbokkam ànd ak ay xaritam mooy bête noire u Pikine bërki démb fa dugg waaye nag doomi déggoo ji ne ko déedéet bala ko du maa mbaa yirim may sa xëri mi ci njopp ne ko da ngaa defoon waaye maa koy arrêté sëriñ Demba Senghor ne ma làmb ji jenn làmb la bisu maa ngi lay nuyu di nuyu sama yaay ju baax jooju waaye ki ñëw laa ilaaha illallaah doomi parcelle bi egsi na kooku mooy Modou xarañ loo kan moo xarañ ñu ne Modou loo am ñu naan ibaadu la takkatul dara munu leen loolu samay yëf la waaye bu ma ñëwee ci biir làmb ñëpp xam ni man la kan moo ñëw laa ilaa laa ilaha illallah fadam ku ñëw fadam gaay fadam ku dugg si nii le roi des arènes moo dugg ci Abdou Aziz. kan moo dugg si nii. le roi des arènes moo dugg ci Abdou. mais danoo gis ngay wax ñime ko lan la. waaw mais xam nga tey li problème day koo xam nii li muy wane da koo confirmer ci làmb. lim doon da ko confirmer ci làmb lim ko lim ko confirmer. Ibaadu bee ñëw wala mbër mi. na ma mbër mi la xam nga tax lu muy indi li muy indi moo gën a fort lépp mooy sportif international bi léegi moo ñëw. moo Modou wàcc na Modou wàcc na parce que gépp a ngi jàkkaarloog moom xarañ loo wàcc na barki démb moo dugg Pikine def lam fa def fayagul am ku ne ko dinaa koy sobe mu ni ko déedéet mbër mi egsi na. kooku mooy Modou Xarañ Lo jëlal ma biteel bi jëlal ma biteel bi jëlal ma biteel def nañ ay débat déb xarañ loo ngi noonu wàcc laa ilaaha illallaah Modou Lo nar Modou Lo nar Modou Lo nar Modou ni nga ñëwee dafa tàng ah Modou mi ngi ne teg ngi noonu Modou ngi noonu di dugg si Almaañ noonu Serigne Demba Senghor moo doo ngi noonu di dugg si moo doo ngi noonu di dugg si Laay Njaay moo doo ngi noonu di dugg si laay laay la moo doo ngi noonu di dugg si papi sagay wis moo doo ngi noonu di dugg moo doo ngi noonu di dugg si laay Njaay moo doo noonu di dugg si moo doo ngi noonu di dugg si ah ah ñoo ngi koy jëgal Ababacar Ababacar Mbaye moo doo ngi noonu di dugg si Laay Njaay lamba ngi noonu 2S moo ko man ana waa Allemagne waa Suisse France laay laay la laa xarañ loo xarañ loo ngi noonu xoolal Papis xarañ loo ngi noonu wis na ba wis micro bi ko ci loxo bi jëlal ma micro bi ci Papis wis na ba wis micro bi mooy làmb plateau bu mel nii kenn mësu koo gis Modou Lo ngay nuyoo Modou Lo ngay nuyoo laay laay la laa grand lan nga yëg tey lii nga def kenn mësu koo def Modou Lo ngay toog Abdoulaat Modou Lo toog na waaye jàpp na ñaari tànki Modou Lo ngi noonu xarañ loo Makane yaa def lu kenn deful boole ay champion waaye ñoo ngi gis waa kër kañ ñi ñoom taxaw bu yàgg ne ko siis bi nga war a toog rek ngay toog li mooy làmb xanaa tegtal la weex bi waa kër sañ kañ soose Modou Lo noonu dafa mer fas na gi tamit sa ngi noonu yor micro 2STV ngi noonu Modou Lo egsi na li nga boole xam nga ko yow daal yaay lom du événement. waaw mais d'abord di la ziar di am contentement bu wér di nuyu àdduna di nuyu ànd monde entier. waa Ndiassane. waa ña fay sant bu baax di nuyu sëñ Ibrahima Kunta. sama goro di nuyu Ndiassane gi yëpp di ki nga xam ne mooy porte parole bu Ndiassane ñu gën koo xam ci xalifa Baye Mbacke waaye avant tout Serigne Sidi Mbacke ibnu si Abdou Lahad mi sama wasila maa ngi koy nuyu Mbacke Balaye sa mais lii nga boole tey lan la. waa mais Gaston production événementiel lay def ba ñuy jël Modou Lo dañu ko jël boole ko ak Boy Niang 2 damay wax ni ñaar ñi amul loo leen laaj amul loo leen topp Boy Niang. dafa am lu ko Pikine di laaj Modou Lo li mu yor nee na mayewuma ko ablewuma ko da ngaa baax rek Aziz di laaj waaye sénégalais yi seetaan xam nañu ñaar ñi du ñu war ci biir làmb te borom yi jom lañu. kon ci kanam tuuti dinañ gis lu garaaw. waa Cheikh Sarr lii mbaa jàmm la. <laughs> waa jàmm rek wala taaru senegal waa Cheikh tey 2 li mu boole. waa 2 li mu boole daf ko war a boole ndax c'est senegal xam nga bu ñu waxee làmb 2S mënu cee génne loxoom. bu ñu nee musique la même chose culture la même chose kon tey jotaay bi dafa nekk jotaay boo xam ne jotaay bu nar a riche jotaay la boo xamante ni si tey dañuy boole musique ak lamb boole ITV 2STV Bantamba TV télé yëpp ñoo bokk ndey ak baay waaye gi gis tey jii suñu mag El Hadj Bakay war ñoo jiite kon tey ji lu lu neex danañ ko dund waaye danañ dund rafet waaw danañ dund rafet. parce que mi noonu xarañ loo egg si na jëlal ba xarañ loo ma nga ca téléphone ba xarañ loo yegg si na mais grand loo yëg kontaan rek ah